wax dëgg yàlla am contentement moo tax gisoo démb ñu jógee musée nelawuñu sax ba doyal mais fa ñuy daal di ñëw ñëw suñu rakk ji Ndeye Ndiaye Banna yaa mbokkum yaay fandooy macha allah nga xam ne danoo bëgg Adji Mass ba xam ko fonk ma di ma apprécier allah. yan conseil nga koy jox sëy ba sëy bu mu lijjanti bu mu toppatoo bu mu xool bu mu faale bu mu déggoo ko man lii laa wax. lan ngay wax këram. wax dëgg yàlla nee naa ko ndam ndaxte macha allah lam ñu digoon def na ko macha allah. ah loolu xam nga ni ñu yàgg nañu koo dikk na ku xam na ni mooy suñu jëkkër. <laughs> waa tey sama loxo mi ngi ci soos mi ngi ci beurre jadida mi ngi ci fromage gruyère mi ngi ci chokola tout ce qui fait bien des glaçons sama loxo mi ngi ciy baax ndax la raxit yi laa bàyyi bàyyi yebo yi bàyyi suq yi bàyyi melentaan yi bàyyi jimbo dëbbaale yi bàyyi ñëpp. yaa eh, ku ko

nii ragal ñu woon aw buur këram ñooy jeeg ñoo toog su def di jël ni ko bébé hmm. sakuma sakuma tax la ma ne ñooy jeeg ñoo toog ah su def di jël ni ko bébé waxal waay sakuma bëri ko ba madame Fall ay waay ñooy madame Fall aw buur këram ñu ngi nii benn la ci kaw keneen bi jàppale ñu xala benn benn ah benn madame Fall prendeu um coelho. gaaw nañu ñëw gaaw ci bal la de wóorul de waaw waaw bal bi waaw gaaw leen bal si non ñëwul la ñëwul ñëwul moo tax su ma la buusee léegi nag mooy dóor quoi. ma xam ne man maa xam moo tax ma ne la mooy dóor. dama dama relève, douze laa mi ah, ah, laa mi laa mi laa mi yow lii mis nga ko tàmm nga ko

aywa sëñ bi tamit kan nga ñu bàyyi. sëñ bi kañ nga ñu yaaree tey. non tamit mais jàppale nga sa doomu ndey de. ah jàppale nga ko. xeebu ma bés bi. ah bàyyi la la jël xeebu ma ba fii de voilà. Thank you. Nada um yéen mu ngi ñëw Come on!